dalena leen c'est jaamu sport de Sport ans. dañuy ñëwaat ci li nga xamante ne mooy équipe nationale bu Sénégal ak match yi ñuy waajal seen diggante ak Congo mu war a xew niki suba ci ajuma ji bu ñeenti waxtu ci bëccëg jotee ñu gis ne nag gaynde ñu ngi amal li nga xamante ne mooy seen tàggatu bu mujj ci tey jii ci li nga xamante ne mooy alxames bi waaye nag ñu seetlu ne euh, am na nag ay absence wala boog benn absence bi nga xamante ne am na ci mooy ki nga xamante ne mooy bulaa jaa bulaa Dia moom ba tey jii gisaguñu ko ndax ki nga xamante ne mooy Krépin Diatta ak Kalidou Koulibaly bokk nañ ci ñi nga xamante ni dañu tardé woon mais ñëw nañu sax tàggatu na démb ak gaynde yi waaye nag ki nga xamante ni mooy Boulaye Dia moom ñëwagul te jàpp nañu ne amande dina utee li nga xamante ni mooy match yi bu fekkente ne ñëwul ci waxtu yu mujj yi voilà kon jamono yi ñuy waxee ak yéen Aliou Cissé am na lu toll ci 30 lions fanweer ci ay gaynde ñoo fa nekk actuellement euh, Krépin Diatta ak Koulibaly ñëw nañ euh, mu nekk 30 mai ki nga xamante ni nag mooy euh, Boulaye Dia moom ñëwagul ki nga xamante ni tam mooy Nampalys Mendy mi nga xamante ni jamono yi bokk na ci gaynde yu bes yi nga xamanteni Aliou Cissé convoqué na len mom dama wax na gannaaw bi nga xamee ñu bari kat euh, ñu dal wax ne ki di Nampalys di fi dafa tanon yi nga xamanteni moy France mom limu xamlé moy mom mosul wan ginnaw li nga xamanteni moy euh, Sénégal voilà mom euh, problème bi kay moy ndax mos nañ ko convoqué mune mom mosu ñu ko convoqué ta mom lu mosa delo li nga xamanteni moy convocation bu Sénégal waye nak donte ne amna ay wax yi nga xamanteni jaar na fi ba yoy yep wan nañ ko ginnaw mom contane na lool ci téwal li nga xamanteni ni équipe nationale bu Sénégal ta dina def lépp lu mu mën gën a xeex lépp lu mu mën ba yëkkati li nga xamante ne mooy drapeau bu Sénégal moom Nampalys Mendy moo yëkkati kàddu yi mu ngi xam ne ne mosul delloo ginnaaw Sénégal mosul wan ginnaaw Sénégal ko ci fi jaar kenn mosu ci ko ci convoqué mu ngi soog jot convocation bu Sénégal te bi mu ko jotee tegut ci baat dafa ñëw teewal li nga xamante ne mooy Sénégal keneen ki nga xamante itam wax na mooy kii di Fodé Balla Touré bi nga xamante ni moom itam ci gaynde yu bees yi la bokk yëkkati na kàddu di wax ci li nga xamante mooy ak teewam ci équipe nationale bu Sénégal ne moom nekk na joueur bi nga na li nga xam ne dafa bett lool maanaam daf na ci li nga xamante ni moo ko tànnloo équipe nationale bu mooy na ko Aliou Cissé bi ko Aliou ba waxtaan ak moom tegal ko mbir naka lay doxee maanaam naka la mbir di déroulé fii ci équipe nationale bu Sénégal loolu bokk na ci li ko gën a ngir mu tànn équipe nationale bu Sénégal mbir bi nga xamante ni itam bokk na ci li tax mu def choix am tànn Sénégal mooy waxtaan wala bokk yaayam bi nga xamante ni la te it nekk na ki nga xamante ne lu nekk la ko defal te bëgg na euh, bëgg na ko delloo daal li nga xamante ne mooy mbégte boobule loolu bokk na ci li tax moom Fodé Ballo-Touré mu dal di tànn euh, ngir jouer ci équipe nationale bu Sénégal te nee ñëw rek ngir figurer ci li nga xamante ne mooy équipe waaye daal dafa ñëw ngir euh, wane boppam maanaam li nga xamante ne mooy 100 pour cent ci li nga xamante ne mooy nation bi ba a am li loolu la ñu bëgg moom Fodé Ballo-Touré moo xam lu ni mel kon jàpp ne Fodé Ballo Touré ñëwul rek ngir teew ci li nga xamante ne mooy équipe bi waaye dafa ñëw ngir imposer wane li nga xamante ne loolu la mënee moom ki nga xamante ne mooy Fodé Ballo Touré Sénégal comme ni leen ko waxee ci fàttali ñu ngi war a joué ni ki suba euh, ci àjjuma ji bu ñeenti waxtu jotee seen diggante ak Congo balaa ñu amal retour bi talaata lay doon seen diggante ak Eswatini boobu war nekk fi nga xamante ne mooy stade Lat Dior bu Thiès